gën noo gàtt noo ngeen jëf ami euh, fidèle internet yu Tawfekh Production am mbégte saa su nekk dañ ko def ak yéen suñu ay jotaay euh, baaxe leen ko ngir yéen ñu bàyyi xel ci euh, mbaali jokk yi wala boog ci plateforme digitale bi di ñu bàyyi xel ci YouTube bi Facebook bi en tout cas di am mbégte saa su nekk rek ngeen di ñu topp di joxe seen contribution ngeen dem ci rek ngeen mën a dem abonné via également chat bi ngeen joxe seen contribution mais également ngeen rek gën a yokk abonné yi nga xamante ni euh, Tawfekh Production mi ngi koy ànd ak saa su nekk ñoo am mbégte nag euh, tey jii leen mm, seq waxtaan euh, ku ñuy wax Oumar Gueye Sow jiitee fondation bii di Odis nga xamante ni taxawaayam ci société bi xamees na ko ci wàllum njàng ci wàllum tàggatu ci wàllum euh, faju ak euh, lu jëm ci alam gi bi maanaa di environnement ak yeneen ci ponk yoo xamante ni euh, laxasu na ci loolu lépp ñu fas yéene ko waxtaane ak lenn li nga xamante ni moo sabab liggéey bi ak liñ ciy séentu incha allahu rabbi ñu am mbégte kon dalal ko Omar Gueye ñu koy ziar baax di la nuyu. gannaaw bu ma sant yàlla. Hmm. julli si yonent di gërëm suma suma sëriñ suma kilifa muy suma papa. Mm-hmm. di ñaanal yàlla guddal fanam wëral ay cëram di ñaanal suma wayjur bu jigéen. di mm-hmm. suma yaay. Mm-hmm. Euh, yàlla oyofal suuf si kawam. alhamdulilah mu jëm. gënal ko fii mu jóge euh, di sant bu baax suma soxna. moom mi nga xam ne moo ma jàppale. ba ma mun a àgg tey fu ma àgg maa ngi sant bu baax. di. nuyu samay doom di leen hmm. sant euh, di sant bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo may jàppale di sumay employé waaw mi ngi noonu donc euh, mu nekk lu am solo bu fi ñëwee tey nag dañuy fas yéene waxtaane lu jëm ci euh, benn kuréel goo xamante ni mi ngi tudd Odis buñ doon wax Odis lan lañ ci mën a jàpp. waa Odis kañ la juddoog fan la juddoog nan la juddoo. en tant que société c'est une société qui a été créée en 2009. Euh, mu nekk euh, la société Odis Group hmm. euh, mais la fondation en tant que telle c'est la fondation Odis hmm. qui a été créée pour apporter sa contribution aux efforts mmh. euh, inlassables des pouvoirs publics, mmh. euh, bonne volonté auprès des populations du hmm. Sénégal pour le bien-être de chacune et de chacun. Euh, ODIS, Fondation ODIS, euh, c'est une association à but euh, non lucratif. Mmh. Euh, consacre ses actions en particulier à l'endroit des femmes mhm. et des jeunes mhm. par mmh. des interventions mhm. euh, dans l'éducation et la formation, euh, dans l'amélioration du cadre de vie, dans la promotion de l'emploi, mm -hmm. dans la préservation de l'environnement, mm dans l'inclusion sociale, dans l'accès au soins de santé et dans la promotion de la culture. Mm-hmm. Mm-hmm. mooy da nga ko tënk ci français boo ma ko doon tekki ci wolof lan lañ ci mën a jàpp. waaw mooy ODIS euh, xam nga euh, dam ko créer comme nu ma koy waxee mu nekk hmm. benn fondation boo xam ne nii amul daraay daraay daraay politique hmm. fondation la boo xam ne nii à non lucratif bu ñu hmm. koy wax maanaam euh, seen tuuma ci dara beneen bi mooy dam ko def pour jàppale ndaw ñi ci seen jàng def ko pour jàppale jigéen ñi def ko pour jàppale ñi nga xam ne dañu feebar te amuñu lu nu fajoo def ko ci muy dox ci wàllu environnement hmm. def ko aussi maanaam fondation Odis mi ngi si mi ngi si mi lépp hmm. mi ngi si lépp en quelque sorte hmm. noonu laa ko mën tënkee parce que mm-hmm. amuloon su ma yooloo. bu baax léegi léegi yan activité ngeen jot a gën jamono ji bi ngeen ko taxale ba léegi lan lañ jàpp ni euh, mën nañ ci dóor baaraam ne lii kat audis xëy na euh, accès na ko ñëw na ko bu dee ci wàllum njàng xëy na def na lii bu wàllum tàggatu xëy na def na lii bu ci wàllum euh, santé wér giram xëy na def na lii environnement xëy na def na lii comme ci ay bànqaasan bokk wala bokk benn ci yooyu am ci bu mu ci def wala mu am ci lu mu waaj a def loo xamante mën nañ koo tënk waa xam nga fondation audis xëy na ñu ngi koy soog a taxawal. pas taxawal. Mm-hmm. je dis pas taxawal. Mm-hmm. fondation audis xëy na. Mm-hmm. ñu ngi soog a xam lu muy def. bu mu demee il y a une semaine. à Bambey. di jox foofu ay bourses ay élèves. mu ci trente cinq élèves. fondation Odis jox leen ku ci nekk cinquante mille francs mhm. pour ñu mun ci def seen ay inscription mhm. ci biir trente cinq élèves yooyu fondation Odis groupe di leen accompagner durant toute l'année scolaire mhm. en leur octroyant ku ci nekk benn bourse vingt cinq mille durant les neuf mois chaque mais mois fonda cinq élèves yooyu yëpp mais fondation audis yàgg na tabax ay ay ay juma fondation Odis gas na ay teen Mm-hmm. fondation audis tabax na ay école mm-hmm. fondation Odis mm-hmm. en 2021 jël na en charge ay malades à hauteur de 14 millions à l'hôpital Aristide de Dantec en 2021 je dis bien 2021 nous sommes en 2024 fondation audis yóbbu na ay nit ñu feebar mu jëlee leen senegal yóbbu leen ñu dem faju yi fondation audis euh, doon na dem hôpital xale yi nekk jam ñaajo mm-hmm. di faj ay malade mm-hmm. euh, donc euh, xëñ na ñi xamul woon fondation Odis ñoo koy doogaa xam moo tax mm-hmm. coow li xaw a bëri mais fondation Odis lu mu doon def yëpp da ko daan def dans la dans la dans la perspective quoi parce que ñun ku ñu xam-xam ne ah, man boog ku ma xam-xam ne li may def yàlla rek laa ci jël seede yàlla mi nga xam ne moo ma sàkk Euh, gën ma jegeñ samay bu mu baat te bu ko neexoon bu ma nooyee bala may waat mu faat ma moom rek laay jël seede te moom rek moom moo tax may def nit mm-hmm. taxul may def mm-hmm. seentuwuma ci fayu nit parce que mm-hmm. nit mënu euh, ma fay man li ma soxal mooy naa dimbali néew gi doole yi naa leen dimbali euh, nit nag comme lu waa ji doon wax keroog buñ ne dafa gore day fekk moom mu wéet Mm. cundum mm. mais buñ nee gor la ku nekk sañ ko taxaw ne diw mi góor la mm. mais aussi buñ nee diw mii dafa baax damay faral di dégg ñu naan est-ce que mbokkam yi ñoo ko wax ñoo ko wax man bi may bay damaa commencé si sama wewu tànk man su may mbokk laa njëkk a dimbali jàmbur amul parce que ñun ñëpp benn lañ ñun donc jàmbur amul amul dimbali jàmbur ñun ñuy dimbali ñun ñëpp benn lañ man jàpp naa ne képp koo xam ne nii jàkkaarloo naa ak yow nga xool ma xool la yaa ma gën. Mm-hmm. man taalibe Sëñ Tuubaa laa. Mm-hmm. booyof nag donc jàpp naa ne képp ku ma jàkkaarloo rek man yaa ma gën. Mm-hmm. ba tax na lu may def aussi dama koy def rek te yàlla tax. man ku ma gis rek jàppe naa la suma bopp lu ma mën dinaa ko def ci dimbali ñi nga xam ne. mënuñu lu ma yàlla jox ma koy séddoo ak ñoom. pour ñoom ñu jéem a am loolu rek laa ko jàppee. yaa ngi koy junj Bambey ndax mën nañu xaar audit si yeneen diwaan yoo xamante dina fa lawal ay bànqaasam. waaw xam nga boo waxee Sénégal. Mm. Sénégal c'est quatorze régions. quatorze régions quarante six départements. Mm-hmm. quatorze régions yi audit région bu si nekk am dafa fa représentant. Mm-hmm. ci lu ñuy def wane ko ak lu ñu wanewul mm-hmm. parce que man bëgguma di faral di wane. Euh, audis am na ci quatorze régions yëpp ay ay représentants te bi école commencé ibbeeg léegi ñu ngi ci mhm. euh, lu ci mel ni Fass bii nii école Manguier bi nekk euh, fii nii audis mhm. mhm. dugal na ci loxoom yaakaar naa bañ defar école bi bàyyi ko vidé ndox bi fa nekk defaraat classe yeeg ootu audis euh, soo demee fu ci mel nii Mbacké am na ci ay écoles yoo xam ne nii. Hmm. jàpp na si mu ngi siy def. Hmm. pour ne citer que parce que ci biir région yëpp 14 régions yëpp am nañu fa hmm. ay représentants te ñi ngi li nga xam ne war nañu ñu koy def. xaaruñu si kenn nag. c'est important. parce que am réew boo ñu nekkee. ñun benn président la ñu am. en la personne de. Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence monsieur le président de la république. président jotewul fépp. donc ñun ñu nekk ci réew. di woowee suñu bopp ay acteur de développement. Mm-hmm. te du jàppale président ñun mm-hmm. président la ñuy man président laay jàppale. Mm-hmm. Bassirou Diomaye cib liggéeyam. politique ma nag soxla ma benn poste politique. man benn candidat laa am ci politique muy sëñ Touba te lu muy gañe ñëpp gañe ne ko <laughs> donc soxlaa ma beneen candidat. mais man président laay jàppale. ci politique de développement am. moom laay jàppale. te nag damay doogaa tàmbali. xam bu ma nee la Odis euh, fondation Odis bi ko créé ak léegi ça fait presque 4 ans. Mm-hmm. mun naa la wax ne la damay doog a tàmbali commencé bu ma sax. Mm-hmm. te lu ma mën dinaa ko def pour réussir du président son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mm-hmm. ci politique de développement. politique de macha allah euh, peut-être laaj bu mujj bi ci kàllaame coach lan la ñu mën a xaar ci ay projet yeneen yu weesoo yi nga xam ne duñu nga ko ci wàllum santé environnement ak yeneen ponk lan nga mooy perspective loo xamante ni Odis euh, na mën na koo dëgmal bu ko yàlla may kattan bi. waa man li ma li ma li may wax à chaque fois rek euh, objectif bi ma am pour 2024. Hmm. parce que man wax naa la way bay booy bay da ngay commencer. si sa tànk C'est vrai que nous sommes présents dans toutes les 14 régions du Sénégal. Euh, mais je vais commencer par mon département. Hmm. parce que man je suis un de Bambey. Mm. et chaque fois dam koy wax ne leen man Bambey laa am. xaw hmm. ma fenn pour Bambey Bambey hmm. parce que nag ku nekk fa nga dëkk ngay tiitaroo. te jii bu ñu doon wax ku nekk na nga dellu fa nga dëkk man bu may weewee samay bagages destination Bambey la. est donc euh, pour le district sanitaire de Bambey. am na lu bëri loo xam ne nii mbébét naa ko pour def ko ko mm-hmm. d'ailleurs commandé naa lu nga xam ne ñoom ils ont un problème de rajo mm-hmm. moi j'ai la commande mm-hmm. te yaakaar naa ne fii ak ay fan yu néew dinañ dem ñu montal leen ko beneen bi mooy sur le ci ci côté éducation bi euh, maa ngi ciy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom laa ci war a waxtaan ak ñi fa nekk ñuy xool nan la ñuy def pour defaraat table banc yi fa nekk yëpp man jël naa engagement rassemblement yi fa nekk yëpp man dinaa ko préparé. Mm-hmm. jël naa engagement boobu avec mes mm-hmm. beneen bi ci topp mooy école yi nga xam ne délabré wu nañ ñu xool lan la si fondation Odis mën a def ñu def ko ci. Mm-hmm. incha waaw utuma ci nag ku ma ci jàppale wala ku ma ci dimbali. am solo wëriwuma aussi pour ñaan. lu ma def ci sama fondation. ñaanuma kenn te bëgguma aussi kenn dimbali ma ci. am na solo li ma yoroo néew yàlla wërsëgal na ma ko moom laay séddoo ak fondation. mais utuma ci ndimbal xaaruma ci kenn dimbal dama ci waruma ñaan si kenn aussi. macha allah yeneen yi si topp mooy yeneen 14 régions yi nga xam ne des nañ ku ci nekk si représentant wax naa la ñoom nga yónnee ma boo xam ne nii. Mm-hmm. dinañ ko mën a doxal. Mm-hmm. pour mën a xool nan lañ leen di jàppale. si mm-hmm. wàllu éducation bi. macha allah ak ci wàllu santé bi loolu moo nekk loo xam ne nii si nekk. jërëjëf donc xam naa dañuy dem ci. Euh, kàllaamay euh, français bi rek di amoon mbégte kon dala ko moom euh, Omar Gueye jiite fondation Odis nga xamante ni euh, faram na ko sànq ci ponk yu bëri yi nga xamante ni mi ci àddu ci wàllu. Euh, politique de développement li nga xamante ni jàpp nañ ni kenn ku ci nekk ci Sénégal war nga ci bay sa waar euh, rawatina ci wàllum njàng mi nga xamante ni dañuy wax ne booy xeexe réew sax soo ko bëggee gañe njëkkal ci école yi euh, boo ko yàqee rek gañe nga moo nag mu am xememteef jàpp ne école yi dañ ko war a suuxat gën koo taxawal gën a jàppale tamit état ci liggéeyam te ku nekk xam ne ñun ñëpp état la waaye tamit ci wàllum santé ak wàllum environnement parce que loolu lépp dafa bokk ci cadre de ak yeneen projet yoo xamante ni police mi ngi koy bay waaram ci biir réew Sénégal rek a suqali réew mi li ñuy wax wàllum su dee lampe du développement euh, kon ñu jaajëfal ko moom Oumar Gueye ci li nga xam ne moo di waxtaan wi ñu seq ak moom mu baaxee ñu ko euh, xanaa dañ lay bàyyi nga tàggatoo euh, ci kàddu gu mujj. damay dellu di sant suñu borom. Mm-hmm. bu baax a baax a baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. salaam salaam suñu papa comme ni ma koy waxee. à chaque mm-hmm. fois suma mm-hmm. sëriñ suma kilifa. suma wéeruwaay. macha allah di gërëmaat encore une fois suma soxna. Mm-hmm. di sant sumay sumay doom bu baax a baax a mm-hmm. baax. Mm-hmm. di wax ne fondation Odis ibbi naa bunt yi pour ñëpp. de fondation Odisu kii la wala fondation Odisu kële la. Euh, comme nu ma koy faral di waxee man awma xarit. j'ai pas man benn xarit laa am suma àdduna suma soxna la. macha allah donc awma xarit awma àndandoo. fondation Odis dama ko def pour ñëpp ba pare def si ay numéro numéro yoo xam ne nii ku woote di nga jot ñi nga xam ne ñoo nekk ci fondation bi. est-ce que doo ko joxewaale. Euh, c' est le 76. 638. 77 44. muy numéro boo xam ne nii boo ci wootee man doo ko jot. Mm-hmm. te ñi nga xam ne ñoo yor fondation bi dinañ ci jot. muy le 76 638 77 44. képp koo xam ne nii am na loo xam ne nii fondation bi gis nga ne war na si mun taxaw pour jàppale la. Hmm. mun nga woote si numéro boobu noonu. Hmm. fondation bi dina la wuyu. ki fa hmm. nekk représentant bi dina la teg euh, ci yoon bi ngeen mën a def ba am accès si fondation ba ñu dimbali la. fondation bi man awma intermédiaire. ak kii que ce soit amul kuy taxaw ne man maay intermédiaire Omar Sow ci fondation bi. encore une fois man je sais pas awma xarit. benn xarit bi ma am mooy suma jabar te suma jabar nekkul ci fondation bi macha allah donc ñuy liggéey ci fondation bi rek nga mën a jot boo leen jotee aussi lépp loo xam ne nii war nañ la ko defal dinañ la ko defal te yàlla rek tax en retour amul daara loo xam ne dañ ko ciy seen macha allah ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier si seen disponibilité ak seen temps bi ngeen am pour ñëw ba fii nii pour defal ma interview boobu mbokk yi jër ngeen jëf yéen tamit yéen ñi nga xam ne ñu doon topp te xam ne audios a ngi noonu ni mu ko waxee sànq ci numéro boobee di affiché euh, ci écran bi mën ngeen cee woote ngir euh, rek fësal seen euh, yéene ak seen taxawaay ànd ak ñoom ci liggéey bi ak seen i mbëbët ndax ñoom li leen tax a jóg ni ñu ko waxee sànq rek mooy politique de développement te loolu kenn ku ci nekk ci Sénégal bu ci nekk ak fépp foo mën di nekk d'ici et de la diaspora war na nekk si ittee kon dem leen gaaw ngeen bàyyi xel suñu ay programme ci Tawfekh Production ndax saa su jox li bég ci yenn ak li leen di gën a bégloo kon jaa ngeen jëf